le 19 mai arène nationale la ñu jëm ñu ànd ci ak Ndiaye production Siteu bu Ngor xale yi nan ko last cri bi moo fa war a jàkkaarloo ak Boy Diop numéro 2 mooy borom soo mi laa ilaha illallah déglu leen ñaari xale Fallou Ndiaye bu neexee sax mu bañ a mu def grand combat bi kese day woon mburu 15 bolok la dina bu ko neexee ñu dem si Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye jox ko 50 bolok jox la sa ah. ji lamba ji neex la lamba ji li ma waxoon rek mooy li ma la lambu millier la nee nee na waa Ngor Yoff Waxaam kenn mënu si dara mënu maa jaxase kenn man doomu dëkk bila laa fi laa juddoo fi laa yaroo bu dee Ndakaaru nag la ñuy wax yëmbal kenn mënu koo génnee ci Ndakaaru man maa ne ko si dëfu Ngor ba mu ma ma ne ko Ngor Waxaam ba Yoff boo ci wàcc are boo ci wàcc moo daan la man maa ko wax ñun suñu làmb dara yëmbul moom da ngay xeex da ngay bëre. lamb ji fexe nga ko daw ba sonn mais mu neex la da bëre mu naka la da ngay bëre ci kàttanu yàlla. toog ak moom na ko yaa mën si dem tey. loolu yëpp en boo daanu Balla Gaye pare nañ si yow. yal nu yàlla suturaal nu daan Balla Gaye te dañ koy daan soobee yàlla. dafa xool sax leneen xalaatu sax leneen. xanaa bi mooy seen roi des arènes ngeen di bëre fu mu toll nii. waaye déggoo li ma la. final ngeen di bëre. combat bi. Ah. c'est un combat sérieux te bu jour ba dinañ xam ni c'est un combat sérieux que Tapha moom lay bëree dëgg la sa Tapha Tine sérénité rek lay dégager te moom la ñuy gis ci moom xalaatul leneen mais yaakaaroon na Balla fii si face to face déstabiliser na leen wala waaw ban déstabiliser moom moo moo doon dindi stress nga naan ma déstabiliser yow arbitre taxaw nga bëx ko waaw ma doon dindi stress Tapha il faisait show làkk làkk anglais bi nag yéen a ko digal. waaye déggoo li ma wax Tapha il faisait di show laa la wax loolu kañ anglais ak lépp ciy bokk. Tapha combat bi combat la amul ñun luñ koy wax naan ko defal lii non non non. combat mm-hmm. te moom il est conscient que c'est son combat. waaw ah pourtant premier combat bi la demee woon de ñu ne revanche la Tapha Tine. Mm-hmm. xam nga ngeen di fi fu nekk. fu et puis bu ñu ñëwee ba jour bi sax ñu bëri dañu am déception. peut-être euh, Tapha yàlla. boobu ak bi du la moo changé entre ta très deux mille très deux mille aussi un staff plus élargi am ñeneen ku si mel ne Eric Favre yokku gis nañ aussi. Mhm. ba si staff. technique ah. mystique bi aussi gis nañ ne dafa gën a yokk kon on peut dire que. Tapha new look Tapha mhm. il faut mu noonu new look mhm. parce que da ko mérité. parce que Tapha day éducation de base bu extraordinaire. Tapha nitu kese la. il faut yàlla sunu borom suturaal ko. da koy dimbali. waaw te yàlla moom moo yor ay mbiram. Hmm. te bu soobee yàlla le jour du combat. Hmm. Euh, super teeru tafaay. ak suñu mbokk bawol bawol yëpp. Hmm. nan seen xel dina nu kontaan. Mbaye Diaw face to face yéen ak yéen ak tafaatin fii nan nga ko jàngatee. jàngatewu ma dara mooy que ni làmb la. waaw ñu si jaay ko. dem liggéey ñëw kenn ku si ne war a wane état de physique mais man Balla Gaye 2 la faral. waaw yal na yàlla may ndam ci kaw tafaatin. Mm-hmm. waaye lu koy may lu koy may ndam ci kaw tafaatin. Mm-hmm. moom moo koy liggéey. Mm-hmm. pour man du delluwaat euh, INSEP. pour yow waru delluwaat. déedéet yow li nga gis fii waa Balla Gaye forme bi doy na la moog kan moo gën a baax état physique. tafaatin moo gën a baax état physique. yow mi dëkk géej waaye yaa wax. moo gën a baax état physique. mais tafaatin Balla Gaye 2 daan c'est très facile. Balla Gaye 2 daan Tapha Tine c'est très facile. mais Mbaye Diaw bul tiital sama gë sa père nag yow tamit. xam nga maanaam bëranteeg ponkal moo neex. bëreeg ponkal moo neex te yomb. wallaay nga ji. El Hadj Diouf nee gën a yomb. xam nga loolu daf ci droit. waaw parce que sport. Mm-hmm. da ngay nangul sa sa sa naataango lu mu wax. waaw te moom boobu yàlla. nangul koy bëgg-bëggam. waaw dama ko nangul parce que moom. début émission bi rek déjà ni ko ubbee rek sama xol dafa sedd. dëgg la te noonu la koy tëjee. te bu ñu paree dama koy suivre moom. doomu doomu Souleymane la c'est un très grand champion. Mhm. waaw te li mu wax nii. waaw nangul naa ko moom lu mu wax moom la mhm. concerné. waaw waaw te dama koy nangu. mais mais Mbaye lu tax ne daan ponk la gën a yomb. xam nga ñun dañuy di ay bëreekat. waaw man sama làmb mbër lu mu gën a rëy rek. waaw si laa gën a mën daan mais mais yow gis nga tafaatin bi ak ak Balla am na différence de poids. bu gis naa gis naa leen bu baax xool leen bu baax a baax a baax. Mhm. tey tey tey bu ñu bëree woon Balla Gaye laa faral tey tey bu ñu bëree woon. waaw dama naan tafaatin da kay tey tey tey. waaw tey mais Balla Gaye waaw mais Balla Gaye bu teeloon ñibbisi. waaw jël làmba ji tekk si yoon. Mhm. def li nga xamante ni si ñun moom la bëgg. Mhm. li mu doon def si ba muy début carrière am. parce que Balla gay da magul Eumeu Sène. day wàcce si mbeex mii. waaw taq suuf. yaram bi gàjju fu ne mhm. mbër nag fii ak xajamoo mhm. daan sa daan sa moroom adversaire day nekk jafe-jafe te xajam lu la koy may mooy nga oos mhm. si contact kon yow da nga bëgg Balla Gaye mi xajam si ko avant combat bi wallaahi est-ce que nekkul di xajam tamit ah. ay professionnel ñoo fa nga INSEPS ñoo xamante ne nii tamit yàgg nañ yor ay ay ay ay ay combattant mais Bougar est-ce que xajamu INSEPS ak xajamu fii benn la non moo doon benn ah. parce que fii tey dune waaw yi nga contact bi nga ah. mën a am fii tey mën a ko am foofu. di nga gis benn njaga doole waaw di gis tey benn njaga doole bu la gaañ ci digg ah. <laughs> ni ko gars yi waxee gis benn match ah gis benn match buy curog curog. waaw gis benn ah, fils boo xamante di nga di. gis benn sokosim ak xam-xam nga. Ah. Omar Fall muuma. waaw loolu tey doo ko mën a am foofu noonu. déedéet mais nag bon comme que aussi xëy dafa am benn projet dafa am na benn liggéey bu ñu entamé woon. Uh-huh. xam naa ne ñëpp si na. Mm-hmm. critiques yi bëri na. waaw moo tax ñu ne nañ dem yeggali suñu mission foofu noonu. waaw mais en dans tous les cas de figure. Mm-hmm. daal en amont. a contact parce que suufu arène nationale bi aussi quoi qu'on puisse dire. waaw ku ku amul tey ko cardio bu baax. waaw ko physique bu baax. Mhm. dinañ la humilier fii c'est ça. te xam naa ne ñaari mbër la yoo xamante ni combat bi moom. Mhm. ni père Thioune mi waxee nii. Mhm. combat bi jaral na leen. te xam nañ ne ci combat bi. déggoo li ma la wax. dafa am ay scénario en continuité. man dégguma tubaab de. scénario en continuité même Mbaye Diaw déggu gis nga ma wax la benn affaire. dégguma ko gis nga bi euh, Tapha Tine ak Eumeu Sène. waaw le jour là Balla Gaye bi mu dugg CSA. dafa dem ci côté Eumeu Sène dóor ko un petit câlin. moom waaw dafa dem ci côté Eumeu ko un petit câlin. waaw mais Balla keroog Eumeu Sène moo doon bëri rakam que est que Balla dina non non combat Eumeu dafa dem dóor Eumeu Sène un uh-huh. on prend note. ngeen jël note. waaw. Mm-hmm. xam le ma la. waaw jouru Sa Thiès. Eumeu Sène waaw daf ko rendre la monnaie. moo tax mu ñëwaat dóoraat câlin. waaw bu câlin ba mais euh, avec presque peut-être euh, dix secondes. waaw ah, mais mais mais non attends mais mais à deux secondes. parce que dafa xam ni loolu mooy yëpp gentleman ñëw na ci Balla à dix secondes mais deux secondes yi mu dem def ko ak Tafa Tafa sargal ko nice loolu ay scénario la yoo xam ni yëpp bu ci nekk dañ koy décortiquer pas à pas moo tax man la combat bi grand. mais loolu nga jàngat si loolu dafa da yaakaar nañ leen di sot wala non li ñu ciy jàng du ma wax dañuy sot mais li ñu ciy jàng ñun ñu ngi def suñu ay évaluation de toutes les façons combat bii uh-huh. Tapha dina wan face du monde que ah un grand Tapha Tine mais mais Balla Gaye euh, euh, euh, sax nee na yow contre Eumeu Sène defoo fa dara xam nga loolu victoire boobu victoire victoire yi la daal dañ si dal mais loolu mooy scénario yi ma lay wax nii rek scénario yi ma lay wax nii rek. Mm-hmm. parce que tey moom bi muy bëreeg Boy Niang kon xanaa man ni defu fa dara. Mm-hmm. ah te pourtant bu ko booy Niang daane bu mu tëdd ndeysaan sax man dama xawoon ñeemantal quoi parce que dama waay waaye booy bi na ko yëkkati. ndeysaan ndonda jë mm-hmm. kon moom defu fa te tey dafa dafa dafa dafa def dara ba daanu. dëgg la xam le ma la. waaw bu waxee tafaatin defu fa dara du dëgg. c'est pas vrai. Mm. waaw c'est pas vrai. mais nu contre attaque. dañu contre attaque. Uh-huh. te contre attaque boobu bu fekkoon Tapha Tine il n'est pas lucide. Mm-hmm. mais du ko terminer en beauté. te daf ko terminer en lutte gréco-romaine. Mm-hmm. waaw bu nu wax loolu. bu nu la waxee ngay wax lu la neex. waaw c'est pas ça la vérité. nit da ngay wax dëgg te yàlla tax. déggoo man la combat bi Tapha est très serein. très serein du question man Tapha laa faral di am. waaw mais yàlla bi nu tiim. Tapha il est très serein plus que serein. mais ñu bëri gisuñu loolu nag loolu moo jaaxal sénégalais yi. mais ku ci nekk ni def jeu rek ba jour ba. mais yuuxu bi yuuxu bi nag moo jaaxal nit ñi. li ma la wax c'est du show ku ci nekk daal na def sa petit malin. Mhm. ba jour ba. léegi psychologiquement est-ce que yéen a ngi préparé psychologiquement. grand parce que koo xam ne daf la daan ba pat. daan la arène. waaw hmm? ngeen war a dajawaat. soo parewul mentalement ak psychologiquement ak doole boo mënti indi. Mhm. voilà pour nga daan ko dafay. doon un vrai problème. la man waxuma waxu waxuma doole de. Ah. man waxuma waxu doole. non Tapha Tine musul ñàkk doole. voilà mentalement est ce que pare na. déggoo li ma la wax. Tafa Balla Gaye gënu ko pare mentalement. parce que keroog toujours face to face bi moom moo bëmax arbitre bi. waaw hmm. mais Tafa na la pas fait. Tafa à suivre dafa suivre règle yi. mais léegi bu ah. mais maintenant jour combat bi bu ñu leen wéetalee ñoom ñaar arbitre bi si génn seen diggante. waaw. foofu laay waxee psychologiquement est-ce que Tapha Tine day taxaw affronter Balla Gaye mais jouru combat bi aussi. Mhm. foofu laay profité. waa CNG nu gën a yokk seen superviseurs yi. parce que lii avant combat ci géew beeg yooyu yëpp. nan ko xoolaat bu baax a baax. mais lu tax ngay sonné la lan la loo ragal. mu ngi la ah, ah, ah si yow. Ah, xala waaw wuyu la ak bëgg est-ce que du ñëw si ko wala bala ngay takk ni mu jam ko wala mu dóor ko. waaw loolu tamit mën na am xam nga bala biir kër ko wala mu ne ko waaye sa biir bi nii wala nii. voilà ça ne passera parce que Tapha c'est très bien préparé de ça. waaw Tapha waaw. mënu leen énerver avant combat. ma de la vie. leen déstabiliser avant. mënu lekk. leen hmm. tàndee benn benn benn kii nag. ñu jéggal ko ba at bi ah combat bi du tafaa Tafa du combat bu muy énervé non non. te xam na ko bu leen jotee gàllankoor sax ngeen ko muñ. déggoo li ma la Tafa xam na loolu. Tafa combat bi. Hmm. amul ay énervé wala ñëw naan ko yow lii. mais pourquoi kon ngay wax ne ah. ni yokk superviseur bi ci biir géew non pour nu xool nu suivre parce que lamb dafa a am équilibre pour nu suivre hmm. pour nu suivre. Hmm. moom moo njëkk ba ma arbitre ah. Ah. waaw je pense que loolu suivre nañ ko. no continuité boobu laa wax man foofu laay waxee la ay laay alerté mais du amul leneen. amul leneen yow di ngeen di ngeen provoqué ba tafaatin ci biir combat bi avant avant arbitre bi ciblé. Balla Gaye moom ku ko xam-xam ko si provoqué. kon dina ko provoqué. bañ a provoqué. Balla Gaye kuy bërante ak moom jëlal say mesure yooyu yëpp mën na la dal. lan lan fi wut boo leen ko provoqué lan ngeen fi ah, wut. xam nga mbër bu si nekk ak ni muy doxee. tey jii nii mbër mën nga ko provoqué pour déstabiliser ko mbër mën nga ko sax wan dara loo xamante ni si lii benn sëriñ joxu mhm. pour rien que déstabiliser mhm. mais yow mbër mi nga xamante ni yow yaay bëre yow yaay serein si biir géew. Mhm. concentré wu si làmb ji bàyyi xel ni tey dama war a daan. kese da nga jàpp Euh, làmbam boo gisee toujours ñu koy jaxase. waaw mooy moom day dugg si biir géew di xalaat waa bawal. si cay mbay dugg ci biir géew. di xalaat waa bawal. te boo tey waruma ñàkk. waaw toujours loolu mbër mu koy bëree ñaari xel mënut a euh, def. xam nga lu te bii nag lay gën a xalaat sax waa bawal xam nga lu tax. Ah. Tapha Tine xam na ni waa bawal duñ ko pardonner jamais de la vie ce ce combat avec une défaite doo leen ko baal li ma la ñaar dama ni mhm. bi booy bi dafa wax waa Bawol. Bawol. ñu ci bari. Mhm. ñu ngi ñaanal Tafa nañ ko ñaanal. waaw mais combat bi Tapha Tine il est conscient que. waaw Bawol la koy bëreel. Mhm. waay a si naanun aap. yaay yaay président grand. léegi dafa am benn question. Ah. gars yi pare ku ñoo ngi de. léegi bay surtout surtout surtout tey jii nii da ngay gis deux mille kañ la quatorze. ba léegi depuis que. deux mille treize deux ba léegi bi nga xam te ne nii Balla Gaye Tapha Tine da ko daan Balla Gaye Tapha Tine daan avec la manière c'est-à-dire bu mu koy daan dafa ñëw def nii loxo bi. Mm-hmm. su ma juum déstabiliser def ni loxo bi. Mm-hmm. léegi nag ñu bëri def ci bëri woon rumeur ñu naan ah. Balla Gaye dafa jàpp Taphatine ah. mystiquement mhm. moo tax bu ko defee nii loxo bi Balla gi Taphatine gisu ko woon ah. xam nga ba ni mu koy dumaa ba ni mu koy le 19 mai arène nationale la ñu jëm ñu ànd ci ak Ndiaye production Siteu bu Ngor xale yi nan ko last cri bi moo fa war a jàkkaarloo ak Boy Diop numéro 2 mooy borom soomi laa ilaha illallah déglu leen ñaari xale Fallou Ndiaye bu neexee sax mu bañ a am petit combat ñu mu def grand combat bi kese day woon mburu 15 bolok la dinaa bu neexee si Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye la sa Fallou Ndiaye bañ ah. ji neex la lamba ji li ma waxoon rek mooy li ma leen wax ñoom ñi li ñuy bañ la nee na waa Ngor Yoff Waxaam kenn mënu si dara mënu maa jaxase kenn man doomu dëkk bi laa fi laa juddoo fi laa yaroo bu dee Ndakaaru la ñuy wax yëmbal kenn mënu koo génnee ci Ndakaaru man maa ne ko si dëfu Ngor ba mu ne ko Ngor Waxaam ba Yoff boo ci wàcc are boo ci wàcc ma daan la man maa ko wax ñun suñu làmb dara yëmbul moom da xeex da ngay bëre làmb ji fexe nga xaw a daw ba sonn mais mun neex la da bëre mun naqar la da ngay bëre si kàttanu yàlla